nous avons reçu un traitement qui n'est fait que d'injures et d'un manque de respect notoire face à leur incapacité de tenir un débat d'idées. Nos leaders de la coalition Yewwi Askan Wi nous ont toujours enjoint de donner la meilleure image de l'Assemblée. Raison pour laquelle nous n'avons jamais répondu à ces injures. Mais la dernière fois, lorsque nous avons interpellé le président Mame Diop, il a fait la sourde oreille, il s'est passé ce qui s'est passé. un député la coalition Benno Bokk Yakaar s'est permis face au soutien et au encouragement de ses responsables d'insulter Sëñ Moustapha Sy nous avions exigé des excuses publiques nous avions dit que nous n'allions pas reprendre les travaux tant que cette attitude allait continuer face à la demande répétitive et par respect pour l'institution et pour les Sénégalais nous avions continuer les travaux et laisser cette dame à l'opinion publique aujourd'hui encore face à ces injures, nous avons interpellé le président qui a rétorqué encore une fois un énervement et un mépris total face à notre coalition. Et cette bonne dame s'est permis de dire qu'elle s'en foutait éperdument. Elle a dit, c'est ce qu'elle a dit, elle l'assume et moo tey maa tey nag maa tey moo koy la coalition Yewwi Askan Wi interpelle le président interpelle le ministre chargé des relations avec les institutions les capacités du président Amadou Mame il n'y a jamais d'incident quand il y a une autre présidence toutes les vice-présidences sont bien passées pourquoi il n'y a des incidents que quand il est là pourquoi il n'arrête pas la séance lorsqu'elle est perturbée par les députés de Benno Bokk Yakaar et nous disons à l'opinion que nous n'accepterons plus que les séances continuent tant que cette dame-là continue à être présente et tant qu'elle n'a pas présenté ses excuses comme elle dit que moo tey ñun tamit on ne laissera pas on ne continuera plus la en tant qu'elle ne présentera pas ses excuses. Voilà. On n'acceptera plus qu'elle continue à avoir cette position méprisante face à nos coalitions, méprisante face à nos, à nos leaders, méprisante face au peuple sénégalais. Trop, c'est trop. C'est un man maa ngi tudd Soxna Ba nekk député bu yeewi askan wi euh, pour cette quatorzième législature je pense nag li xew yéen ñëpp fekkee ngeen ko teg ngeen ci seen bët c'est pas la première fois bii mooy la deuxième fois mu am te dañu yaakaar ne assemblée nationale dafa doon lieu par excellence du débat démocratique bu ngeen seetloo waaye yeewi askan wi ñun ci débat d'idées rek lañ dem doo leen ñu gis ñu saaga doo leen ñu gis ñu xaste doo leen ñu gis ñu wax leneen li xewoon ba le passé benn député bu bokk Benno Bokk Yaakaar taxaw wax ay kaddu yoo xam ne tegginuwut ci kilifa diine tey jii nii ku ñu fi saaga sa sëriñ ku ñu fi wax leneen lu tegginu wut sa sëriñ di nga gis réaction boo xamante ne si dina weesu euh, li nga xam ne loolu lañ ciy séentu ci loolu bi njëkk ba député yi yeewi askan wi ñëw nañ ne dañuy def appel au règlement parce que réglement intérieur moom moo tënk assemblée nationale ñu indi ay article article 57 58 59 wax ne la police de l'assemblée nationale président assemblée bi moom moo ko war a def ñu gis ne député yi bu ñuy wax yu yeewi askan wi da ngay gis waa côté bële waa Benno Bokk Yaakaar seen député yi dañ leen di saaga saaga te saaga yu ñàkk teggin ñun ñi di bàyyi muy dem ñun ñi di bàyyi muy dem mais dafa am loo xamante ne si ni ko Aba waxee sànq dafa am loo xam ne kenn du ko nangu ci pays boo xam ne pays démocratique la pays boo xam ne majoritairement ay jullit ak ay nitu diine ñoom ñoo fi nekk saaga nga benn yoon ñun ñi bloqué ñun ñi wax ñu ne danga nga jéggalu démb bi ñu ñëwee dañ ne dafay jéggalu jéggaluwut mu def li mu def ñëpp tegaat ci seen bët tey mu ñëwaat keneen ñëwaat di def appel au règlement pour rappeler au président li nga xamante ne si moom mooy les articles 57 58 et 59 pareegul ñuy wax mu ne man maa tey kon c'est-à-dire assume li nga xamante ne si mooy saaga yu mu def waxi ñàkk teggin yi mu wax ba pare continuer di ko def président assemblée nationale loolu moo ci gën a malheureux da koy bàyyi muy continuer di def di wax comme si moom daal moom moom moom moom ñëpp président bi sa amul autorité envers ñi nga xamante ne si ñoom ñooy groupe parlementaire am loolu mu doon loo xamante ne si lu ñuy naqarlu la parce que nit Sénégal dafa doon dëkk boo xamante ne si nit kenn du ko xeebal gëmam kenn du ko xeebal fameem kenn du ko xeebal bésam séance bi duñu ko reprendre tant que moom mi nga xamante ne si moo defaat jëf ji nga xamante ne si moom moo indi problème interruption yi excusez wul wala boog mu mu ñu ñu jox ko sanction boo xam ne elle na sera pas dans la salle pour mën a assister li nga xamante ne si moom mooy passage yu ministère de de la justice ak yeneen ministères yi nga xamante ne si moom mooy ñëw. parce que ya a y' a trop de laisser aller on a laissé trop faire ba affaire bi commencé di jël ampleur boo xamante ne si waru fa woon a yegg. waaw morceau yu xonq yi pour montrer na que parce que tey c'est le passage du ministère de la justice Sénégal lu ne mën nga wax am na fi ba mu def justice parce que justice dafa war a jouer rôle impartialité justice ñu def justice pour ñii def justice pour ñële dañuy gis ne toujours séparation de pouvoir bi ñuy wax sax entre l'exécutif et le le le pouvoir judiciaire amul parce que da ngay gis président de la république sax moom mooy ñëw taxaw ne am na dossier yoo xam ne man maa ci teg sama sama loxo dossier yooyu kenn du ko poursuivre. le début après suma frère euh, euh, monsieur le maire euh, Ahmed Aïdara wax ci depuis le début ñu ngi doon attention opinion publique bi ci li xew ci assemblée nationale depuis le 12 yaakaaroon ni sax li xewoon le 12 daañu ko fàtte. mais ndekete yow kañu teg ci bopp présidence de l'Assemblée nationale mooy problème bi ñu ngi commencé découvrir son vrai visage il est pire même que Macky Sall bi nga xam dañu yaakaaroon ni Sénégal dootul amati un président comme lui mais Assemblée nationale ki ñu fi gis nii moo raw Macky Sall ci ci ci ci ci ci njuuj njaaj ak caay-caay ak dictature parce que suñu euh, mbokk yi wax nañ ko à chaque fois que ñu démarrer une séance jël parole day bàyyi ay ñoñam lu leen neex ñu wax ko ay saaga te boo ngeen ko xoolee da leen ko fixé seen kama yenn saa yi sax day muuñ ree mel ni kuy wane ni mbégte la ci muy déglu ñooñu ñuy saaga keroog li fi am ñu def appel au règlement te wax naa ko keroog nee naa ko ku artuwul di nga atte ñu def appel au règlement ne ko ngir yàlla ñun bu ñuy wax waxal sa gars yi ñu bàyyi ñu wax te loolu règlement moo ko wax mu ne loolu moom mooy apprécier yoon kenn nekku ci loolu la ñu wax tey même chose bi nar a xew mu defaat la même chose kenn yéeg di def appel au règlement ndaw si nga xam ne moo woon saaga suñuy sëriñ ne moo tey loolu moo tax li am tey mu am fi ndaw si dafa récidiver te loolu ñun nag mënuñu koo nangu ñun on va aller plus loin on va exiger même à ce que lui le président de l'Assemblée le soi-disant président de l'Assemblée qu'il dirige même plus les sessions parce que vice-président yi fi jaar yëpp diriger session yi amul benn coow amul benn problème parce que ñoom règlement intérieur bi lañuy teg si kaw table bi di ko respecté moom il se fout du règlement il fait ce qu'il veut et wax ñu dana tey nag mu yuuxu nit ñi en tant que président de l'Assemblée di yuuxu nit ñi di gëdd nit ñi di def lu ko neex loolu duñ ko nangu décision bi ñu jël mooy travaux yi du am tant ndaw si baaluwul te on va aller plus loin on va exiger même à ce que lui il ne soit plus il ne soit qu'il ne foofu lañ jëm ak moom parce que c'est un incapable mënul gérer la présidence de l'Assemblée nationale du ci Abass Fall du ci du ci non conséquence du dara dañu bëgg rek démocratie fi mu toll ci Sénégal ñu indi bëgg fii assemblée nationale ñu nekk moitié moitié cette démocratie là kenn ku ci ne accepté ko ñu appliqué ko à la règle mënuñu ko mënuñu ko ñu def comme ñoom parce que ñoom loolu lañu bëggoon en réalité Abba wax na ko président Macky Sall dafa bëgg woon Sénégal yëpp ne assemblée nationale ñi ngeen fa yóbbu yàq nañu assemblée loolu la bëgg. loolu nag danañ ko ci fekk ci ñaar danañ ko fekk ci xam-xam parce que ñun yéen yéen a ngi fi journaliste yi dégg ngeen suñu intervention. mos leen dégg benn député yow askan wi saaga. te ñoom ku ci dugg lan nga am comme kii Sweet Beauté ëmbaleur Euh, assassin yooyu rek la ñuy wax loolu rek loolu rek la ñuy a comme argument amul leneen lu wax comme argument alors que ñun nous sommes sur des débats de fond mais comme demee na noonu nag loolu la ñu bëgg dinañ ko wane ñun suñu xam-xam ko yor di ko wane waaye bu xeex jotee tamit daañu xeex voilà voilà amiin vous bon maa ngi nuyu taskatu xabaar yëpp man moom li ma ci bëggoon wax leen kese la euh, comme ni ko président Abbas waxee ñun soxlaatuñ sax léegi mu présenter ay excuses waaye Ami Ndiaye Ami Ndiaye ñii bi liñ bëgg mooy mu génn salle bi ñu bañ a bokkateeg moom salle bi parce que yéen yëfu maa la def na li muy def ñu exiger ay excuse ñuy tey suba ginnaaw suba ba mu dem def interview maanaam dëggal ne loolu loolu muy def yëpp nag man dama jàpp ne Farba Ngom am na ci ngandi part de responsabilité ak président Macky Sall. gars yi moom duñ tudd tur man nag damay tudd tur. soo xoolee ñoom seen toogaay lépp lu ñu def ci biir assemblée bi rek. far ba même bu tàcc jotee moom mooy jóg wax na tàccu leen toog leen yuuxoo leen maanaam lu ñu fi def far ba moo ëpp doole sax sa président Fantos kii nekk fi nii moom président gendarmerie la ñoo ko installé il n'a pas été installé par les députés kenn voté lu ko li ñu bëgg nag mooy ce soi-disant président là moom dootul présider Abdoulaye Diouf Sarr ci ñoom la bokk jaar na fi Malick Diop ci ñoom la bokk jaar na fi bu ñu defee rappel au règlement euh, présidence yu normal la ñuy am ku fi jalgati ci ñoom sax da gis ñu calmé la mais moom gis nga tey bi honorable Sano di wax mais da koo yuuxu ne ko waaye waxal laa la wax wala nga jóge fi comme si ku nekk ak say doom mag la moo xam ne amul yar xëj na nag ni ñu ko falee tamit moom xaw ma da koo gëmewul xaw ma nu mu demee noonu li ñu bëgg nag mooy muy moom muy ñibbi ñu ñibbi ñibbi moom dafa war a ñibbi parce que président euh, euh, euh, le maire Barth wax na ko gis nga Sénégal amoo lu dul ñi la jur say waajur sa sëriñ ak sa bis sëriñ bi nag ñëpp tey ay Moussa Sidine lañ ñëpp nag laa wax sans exception noonu la yeewi di doxee euh, sëñ mu Moustapha nag bon moom moom boo demee sax xam naa jéggale na moom jikko yonent la yor jikko baayam la yor almaktum mais ñi mu nekkal ñëpp kenn jéggalewul en commençant par man boobu parce que yenn manque de respect munu koo weesu assemblée bi nag nii lay demee et puis c'est normal ñoom nag yàlla dalee na nattu ñëw nañu ak ay mag ñi ñu doon xeeb naan ay remplaçant lañ nekk ay xale ñëw demine leen léegi nag coow li moom mooy bon fenn fi la gars yi bëggul woon yegg gis nga groupe whatsapp yeew yi bis bu nekk dañ naan bu ñu leen leen topp bu leen leen topp comme ni ko Abbas di waxee. man nag bu gars yi jaaree nii presque man contraire bi laay wax parce que dama naan ñii Macky Sall xamul arme conventionnelle Macky xamu ko ki na ko nekk les armes non conventionnelles man de fi ma nekk si banlieue Guédiawaye noonu laa def ba gañ a rakk parce que ñii xamuñu yéelaa boo fi nekkee naan da ngay jéem a appliquer loi appliquer ne Macky xamul loolu xamu ko lenn rek la xam mooy rapport de force comme ni ko Sonko di waxee kii xeex la xam léegi nag loolu moom moo fi am ministre de la justice bi nag pour muy leer conditions yi nar a teg ñun xam nañ ne ñoom duñ ko duñ ci d'accord kon moo tax tey fii vote du fi am te xam nga ñun buñ ne vote du fi am vote du fi am. madame ñi ngi jéggalu ñoo ngi jéggalu wàllu askan bi ndax su ñun su doon suñu sago en tant que maa ngi tudd Ndiallo Bathily député la yeewi askan bi ma si wa bi yëpp ndax lii nekkul loo xamante ne bëggoon nañ ko waaye sànq da nga posé question ne lan moo tax ñu takk brassard rouge bi man sax sama bopp laa ko takk pour wan leen ne que ne on n'est pas content du tout ministre de la justice lañ fi woo tey mais injustice bi fii ci assemblée nationale la commencé looloo tax ñu bëgg leen wan ne que ne tey injustice fii la commencé ñoom ñëwoo justice pour ministre bi xam ne justice amu fi ba pare askan bi li ñuy jox ci yóbbante ci wàllu injustice dafa bëri moo tax dañu bëgg commencé ko fii pour mu law ci ci askan bi yëpp ñoo ngi jéggalu jéggalu merci waaw c'est Mamadou Niang ci coalition Yewwi Askan Wi nanu bokk mooy li nga xamante ne remarqué nañ ko ci assemblée nationale bi mooy waa coalition Yewwi Askan Wi liggéey bi leen war ñu ngi koy def taxawu soxla askan wi wax ko waaye coalition Benno Bokk Yaakaar ay saaga nañ fi nekkee te ki nga xamante ne moom mooy seen président groupe parlementaire il n'est pas responsable bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy instigateurs yi ñoom ñooy saagaloo nit ñi seen groupe nanu yare yu jigéen yoo xamante ne kuy wax ñu saaga la saaga yooyu nag duñu ko nangu parce que fii liggéey pour askan wi moom moo ñu fi tax a jóg ñu ngi jéggalu nag waa askan wi waaye itam taxawaay bi ci war daañu ko taxaw ci kàttanu yàlla ba bépp saaga bépp saaga boo xamante ne defati nañ ko fi liggéey bi du mën a du mën a continuer te incha allah